يجر لي للأمان والخلاص بسم الله الرحمن الرحيم لك إلهم إن كي ولا ولا هي هي وري هي إن جي جن جي مدقي تردقي ودقي بلكم من كواجنكو مدبوس كالبوس جلبوس تغن لا لغن بلغن أي تغن لا لغن بلغن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk jullit yi mbokk taalibe bu ngeen déggoo loolu xam ne kii mooy maam Balla bay fal borom Poti Jambi muy waajal ab bis kañ la la 2 marche la 2 marche bi jëm nii mu koy defee fan maa ngi koy defee fii ci Touba Gars Dar ci wetu garab yi borom Poti bi Mbàkke ñu gën koo xam ci garab yi Sëriñ Ibra yi moom si Mourou bis bi kañ la la 2 marche bu ndeyee ba yegg bis ba nag bu ne suba la ci guddi daan fa def samfal bu am solo bu ko defee bu sampal bi yegge ñu mëna a sikkar madda ben ben wala ñu mëna a sikkar ben benn bu ko defé ñu sikkar bu ko defé bu noppé ñu ñaanalante dallu bu suba buñ xëyee suba gëna dogu jibli jubli ci xati yi bu ko defé mu bi suba gi jëm guddi bis bi nak day yendu fanan maa ngi ci woo mboolem sama bokk jankati bayuma kenn am di jamm yi wëlëre yi soppé jankati kulim da ngay jum bayuma kenn bis bi nak maa ngi ko tuddee Baye Fall Silla ñu gën ko xam ci Serigne Moustapha Silla Serigne dara mu dëkk fi ci mang ko dara jale itam saw ton Sow muta Mutadarriin ñu gën ko xam ci Serigne Modou Sow muta Mutadarriin mu dëkk fiya Sura kon dal bis bi kañ la le 2 mars man maam Balla bay fal mako defal borom bat jang di ci wam bolen soppe am di jàmm yi bay yu bàyyiwuma kenn bis bi dal kañ la le mars mang ci wo tamit sama Serigne Serigne Talla Fall moom suñu Cheikh Khadim fal di ci wo tamit wajurum borom bat jang fal wajurum bu tedd wa mang ko ci wo mu sin Cheikh Khadim fal di ci woo mbooleem ahlu Palem ma kenn mbooleem ahlu Mbakke surtout borom batu jàmm surtout ku tedd gi ma kenn maa ngi ci woo mbooleem Sénégal bitim réew fépp rek fépp fu ab taalibe di nekk fépp foo xam ne am murit nga fa di dégg sama kàddu tey sama soppe maa ngi la ci woo bàyyuma kenn biir réew mi bitim réew fépp ma kenn bis ba nag dana jàllaxoo dana man lertu ko dana xàpparti ko waaw bis ba dana jàllaxoo dana man lertu ko dana xàpparti ko bu kenn wuute kañ la la daa waaw la daa mars bis bu ñuy defal borom batu jaam bi fii ci Touba garage Darou Mouhty kon nag bis baa ngi noonu bu ko kenn wuute bis ba